asalaamaaleykum euh, beaucoup internet yu euh, Sénégal TV de la jàmm ci seen émission euh, préférée amul tabou comme lu ñuy baaxoo di koy défé say su nek ci émission bi nga xamante ni nii dafa garawa garawa garawa garawa garawa garawa garaawa garaaw be té li muy garaaw nit ñi ñu ngi ñëw demu ñu kenn fekk ko kërëm né ko ci ci lalam jël ko andi ko té ko dédé ci seen consentement lañ koy défé émission bi nak soko défé b 7 17 17 image bi da du fi <laughs> donc on a arrêté en voie de la ñu kenn indi ko tek ko suñu plateau pour def buzz comme niñu ko foggé déedéet nit nak day am droit à la parole wax expliquer liko naxade ci mom xama lu len di yem yeen moy nit ki niñ koy avertir ci émission bi ba paré mu dem ba ci wax ne am amul la waral parce que émission bi mom mo amul tabou. amul tab ki muy dalal nag tey ci émission bi ku yéeme la kooku mësul tabu daal day saaga sax ay imam kon kooku moom la ñu dalal tey si sunu émission amul tabu kii ñi ci dalal tey moom moo nekk nii ku baax ñu ngi lay nuyu. Ousmane auzu billaahi mina shaytaani rajiim ñu ngi sant yàlla julli si yeneen bi di sant bu baax assistance yi nga xam ne tey ñoo toog fii di ñu déglu wala di ñu seetaan waaye di nuyu mbokk internet yi nga xam ne tey li nga xam ne mooy suñu émission ñu tàpp waaye di fësalaat suñu cofeel ak suñu kóolute si li nga xam ne tey mooy site internet bu bon si adduna bi yëpp ñu ngi Sénégal Euh, jërëjëf euh, ki nga xamantene ni moom la ñu invité kilifa gu mag la su ma nee ànd def te yàlla tax lan la sa xel di dem. waaw Ousmane ànd def te yàlla tax je pense que loolu dafa war may jéggalu tamit ndeysaan sama sama jarbaat sama xarit Fatou ma koy seen si jotaay bi moom ndeysaan mu bëgg ma koy siyaare bu baax a baax waaye ànd def te yàlla tax je pense que loolu concept la boo xam ne dafa am fi mu jógee te fi mu jógee. dinaa la ko tënkal rek dama seetlu sama benn grand bu ma nekkaloon ma seetlu ñetti doomam yoo xam ne ay différentes génération lañ kenn xaratu si maanaam kenn jonguwu si bi ma gëstoo ma laaj ko lu tax daf ma wax ni ma at mu nekk ma décidé ko waaye finalement cin bi da koy toxam jour boobu laa yëg si sama bopp ne war naa ay pexe pour solution am si lu mel nga ut ay pexe daal di jël ay xale di leen xarafal di def te yàlla rek tax dajale li nga am li nga man ak li nga manul laaj ay tuuti defal leen pendant un leen di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan waaye nag ci biir ànd def te yàlla boobu euh, dañuy gis ne da ngay xarab autorité yi lu bëri da nga leen di saaga da ngay saaga dignitaires yi da ngay xam nga moment boobu am daf ñuy dépassé ñu ñuy couvrir moment yooyu

malaaka mawti ñëw jël sama wéjur bu jigéen bàyyi ko fi moom avion bi bu riiree ñëpp yëg ko waaw ndeysaan aayu ñu quoi gars yi ah. mais si tënk rek Ousmane man dofuma masumaa dof te bokk naa si ñi ma jàpp ne ñoom la yàlla waxal ndax ci borom xel yi laa bokk nag te communication parfois nit ñi dinañ ko traduire de manière boo xam ne sax du taxoon jóg li tax kooku def loolu wala mu wax loolu je n'ai jamais insulté un imam mosuma saaga imam mosuma saaga autorité ah Bilal de ñëw na sama kër barki dem démb fekk nga ko place su euh, Njaajaan saga pour saga yu metti wax ko waaw moom laa la bëgg indi rek xam nga. xam nga bu ñu demee ba dugg si point boobu rek doot man dootuma utiliser imam bi wala dootuma utiliser Bilal bi dootuma utiliser président bi ni ministre bi. ah d'accord je vais utiliser directement le nom. de la personne la personne en tant que tel nit ki ngay gis. parce que c'est un respect entre nous comme euh, comme des musulmans. bu nekk cër si man tey. ma ma tudd ku mel ni imaam ñu ne saaga naa ko wala ma ne saaga naa ko mu nekk cër parce que bu dul ngir moom moom moomu sax naa naa naa ko def ngir diine ji nga xam ne mooy bokk tënk te ku nekk xam ne cëru imaam maanaam du cër nag boo xam ne cër bu ndaw la cër bu mag la si diine ji kon si occasion bi tamit ak respect bi ñu war a am si ñooñu bu ñu permettre ñu citer le nom d'un nit di wax imaam ba pare di citer le contraire je pense que loolu du jaadu parce que moo jógee fii léegi tisbaar maa ngi koy julli ji si jàkka bi imam ñu bi kon yow ki ngay saaga du nekk imam bi wala bilal bi en tant que tel mais la personne en tant que tel waaw xam nga xam nga xam nga Ousmane bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax maanaam ñi gàmm ak ñi raas den bokkuñ te man nag xàmmee naa ñi gàmm xàmmee naa ñi raas den Ousmane si tënk man taxawuma maanaam lekkuma junniy kër waaye taxaw naa junniy kër kon xàmmee na xam nga lu ma mënul comprendre man xam nga lan laa mënul comprendre lu ma ko comprendre ba ker baa ma sàngoo suuf muy ku ma diriger man du ma am dirigeant xam nga lu tax du ma am dirigeant parce que xam naa ne nit ñi ay surga la ñuy bëgg te man du ma nekk surga kenn nag bañu ma am kilifa xam nga lu may bañ am dirigeant man kenn du ma dirigé du ma xar mu dee ñu koy watat di yóbbu sën ba man fu ma neex lay dem fu la neex ngay dem fu la neex lu la neex ngay wax mais euh, nee nga dofuloo nit dina dof te moom du xam ne dafa dof man rek maay benn dof bi nga xamante ne damaa dof te nangu ne damaa dof est-ce que mënuloo jàpp benn instant nga xas sa bopp def erreur boo xamante ne jàpp nga ni fi dof dëggantaan nga def parce que Bilal wax nga ko wax bu ko naqari si kanamu penc bi ñëpp di ko rey waa penc bi ñëpp di ko rey bu doy sax te yàgg nga ci. daaw aussi de la police devant nous ñu ñëw couvrir euh, événement bi kan moo la ngem ba lan moo le fital ba ngay sàggu autorité yi comme ça. Ousmane kan ngembuma le problème ngemb parce que utuma ngemb pour def le partage pour def la justice utuma ngemb loolu parce que j'ai compris te xam naa lenn lu nekk degré lan la war nekk. wala man dafa am lu ma moomal suma bopp loo xam ne dama jàpp ne kenn du ma ko sécuriser maa koy sécuriser suma bopp maay sécuriser sama bopp samay manifestation may sécuriser sama bopp sama jom sama ngor parce que foofu laa toll li nga tudd noonu tuddaan léegi di wax bilan bi ma koy définir yow yaa fa dugal bilaal yaa fa gis bilaal mais man gisuma fi bilaal

non say wax ne dafay defaat dafay dépasser de telle sorte que. ñu parce que bo defee lu dépasser ñu wax lu dépasser est-ce qu'il t'est arrivé une fois nga wax ben wax nga rëccu ko. non non non je n'ai jamais fait. musuma am regret si lu may wax parce que lepp lu may wax dama koy consciemment duma ma tux du ma même si du ma tux yoo xam nga lolu d'accord kon je fais consciemment li may def. li ngay def da koy def consciemment. Euh, ñu xas nag xuus si gannaaw bi ñu génnee si loolu nga xamante ne ni euh, moom mooy euh, lël bi. Euh, ñu dugg ci li nga xamante ne ni tey dëkk bi ni muy doxee baat kilifteef ndax da ngaa nangootul kilifteef kilifteef daf fay jóg wala démb ak tey différence bi lan moo xew. Ousmane je suis composé de deux ethnies man su ma bàyyi ba fa mu yem saraxule la su ma yaay ba fa mu yem lébu la ñaari xeet yooyu. dama jàpp ne lu nit gàtt-gàtt xam-xam xam nga ne booy seet dëggu ak dëggal man nga ko jeex foofu man manuma ñàkk fayda Ousmane te manuma ñàkk kilifa parce que su ma bàyyi jàngal na ma ci bindu sëñ Babacar ni kilifa du mën a ñàkk si nit ba donte day dem ba si àll xuus ba fekk garab gu dëgër mu ko maanaam mu ko kott ko def ko kilifa kon ñun xam nañu ne suñu dul mënul ñàkk kilifa parce que dañoo am ay kilifa tënku nag si ay kilifa waaye yan kilifa bu fekkee nag dafa am yoo mën a teg loxo tegal loxo ma wax la parce que nag ñun kam xàmmee nañu kilifa ak ki ne fàng nag d'accord kon tey ñi nga xamante ne ni ñoom lañu jàpp ñun suñuy kilifa yu si mel ni suñuy jaraaf yi suñuy yi suñuy imaam yi suñu yooyu ñi nga xamante ne ni ñun ñu si ñoom la ñu euh, ñoom lañu jox bopp ndax ñooñu dañ laa tey duma wax ne Ousmane doyuñu ma parce que c'est général waaye la majeure partie doyuñu ma te ñom sax xam nañ ne doyuñu ma parce que doyuñu seen bop xam nga ku jaaxaan di saw sawolo kenn sa bop ngay saw Ousmane damay am damay am gàcce parfois bu ma gisee à travers la télévision ñu figurer 95% wala 98% si ñu ñu mën a tuddee tey nos autorités moo xam coutume la moo xam politique de kenn koo si jeex casier judiciaire bu vierge amul ñenn ñi dig wàccoon ak ñoom may leen benn stand-by ñenn ñi dig ak seen kaw di leen poursuivre tey ñu figurer leen à travers la télévision ñu ne ñii ñooy représenter dëkk c'est une honte pour mais yow yaa ñooñu yéen a àndoon am am na ñoo xam ne da ngaa soxor am na ñoo wax ñoo yow dañ laa yàq parce que. am na ko ne ma fekk ne fi ñu la yàqee parce que dafa am benn kilifa boo xamante ne da nga ko dépassé woon mu def loo xamante ne nii da ngay saagaate da ngay mer rek parce que da ngay def ay affaires yoo xamante ne da ngay ànd ak ay nit yàlla dénk leen teraanga nga nga nga dem disperser disperser wax ak ñoom mun naa si lim yu bëri lépp sama kanam la xaw man ak yow depuis. bu la neexee bu la neexee nga lim. mais yàlla nattoo ma ki ñaan parce que lu tax yàlla ma ki ñaan jullit la gor la te sang bu tedd bi lañ ma tuddee fi mu génne ñëpp sa xol la mais teg loxo rek si boobu ni la ba suuf du ma nekk ku ñuy diriger Ousmane gars yi créé wuñu ay créé wuñu ay relève bu ñu la waxee dëgg te yàlla te xam nga lu ñuy créé ay surga parce que bëgguñu bu ëllëgee gis nga gars yi ma wax la pour tënk li leen di neex mooy bu ñu nekkee Yoff nga nekk fii si Almadi bu la soxlaa oo la pour ngeen gisee dañuy am dañuy bëgg nga taxaw 30 minutes pour xaar tata bi bo amee tata bi dañuy bëgg tata bi daw tuuti paan nga wàcc dox ñàq boo yegsi si ñoom da nga war a xiixat da nga war a da nga war mel façon bu bu doy wa ñëw di leen expliquer procédure bi nga def pour mën a yegsi si ñoom loolu mooy seen mbégte est ce que tey du euh, wàll boobu nga xamante ne ni moom nga bokk nga nekk ci dëkk bu nga xamante ne yoof la nga bugg a imposé léegi euh, nekkuloo léegi 100 pour cent boobu souvent damay dégg ñu la ko parce que dafa am ay baat yu bari yoo xamante ne da nga ko yor si dëkk ba te am na ñoo xamante ne peut-être d'accord ñu ak yow si baat boobu est que du li nga nekkul léegi 100 pour cent la parce que léeg-léeg da nga koy dégg. waaw certes mën na nekk mën na nekk loolu parce que loolu mën na nekk sa xel nangu na loolu waaye it euh, xam nga Ousmane. àdduna képp ko am looy bañ rek sonn képp ko am looy bañ son mën na nañu nekk si penc mi ñëpp di ñu way ñëpp di ñu bégge pas di ñu bëgg xam nga lu tax parce que dañuy nekk ay naafeeq man bu ma gisee lu bleu dama naan c'est du bleu bu ma gisee lu ñuul dama naan c'est du noir te mosuma nekk figurant si benn organisation bu ma yàlla lantoo ma nek si moo waral nag ñi nga xam ne dañuy bëgg comme ko gaa waa ji kuy maanaam kuy moytu lu araam di nga bëri looy fande man bëgguma bokk si ñooñu ku moytu luy araam di nga bëri looy fande mu mel ni li ngay fande dafa bëri parce que am ñooñu jiite nañ te ba léegi jiiteeguloo dangay dem ba da ngay bàyyi si li nga nekk sax. Ousmane lan nga tuddee jiite. ñi nga loon maanaam tey jii nii euh, DG Laay mu ngi fii xam sa diggé Sana mu ngi fii euh, jaraafo. DG Laay euh, Ablaye Thiaw. waaw waaw léegi kilifa la ñun ñoo nekk ndawoon di yee suñuy mboqataay ak suñuy suñuy warga ak ak yooyu. mais léegi macha allah mu ngi si almadie fii yor ay bureau xam nga ñi xam nga ñooñu ñëpp nga àndoon ak ñoom après ànd au moins ñoom xam nga ñu ngi teg seen loxo ci dara te ñoom ñu ngi avancé si li ñu nekk est ce que ki ñaan boobu ñuy wax dëggantaan nekkul ci yow parce que nit mënuloo bañ ko la diriger ah. non non man kenn du ma diriger parce que yow daw ko la diriger moo tax nga jóge Japon ñëw Sénégal daw j' que boo ko la diriger doo jóge Japon parce que loo fi nekk rek mu ngi foofu te foofu la gën nit day am lu muy bañ Ousmane dégg li ma la wax bañu ma ku ma man bañuma ku ma ilif ku ma diriger lay bañ parce que dama dama am droit yoo xam ne maa ko moom sëriñ bi du ma ko jox kilifa ku mu mën a doom du ma ko jox maa maa koy jox suma bopp parce que lu tax maa koy jox suma bopp maay sentir loolu Ousmane dama ne yëg-yëgu fuy xesen si nit ba mu koy okk nga di ko yëg tollooguñu foofu te duñu fa toll nag yek yegu fi ci sentini bañ di ko wokk moom du ko yëg te du fa toll dafa wax lu am solo gars yi dañuy bëgg nekk seen 4x4 wala téléphone ne la foo ne nga ne maa ngi yof ñu ne la ñëwal ñoom yor seen 4 x yow nee nga paan dugg dugg Ndiaga Ndiaye nee na ñoom ñoom Ndiaga bi nga dugg bu ñu bëgg sax Ndiaga Ndiaye bi ñëw à l'heure comme daw mu gaaw ñëw non non dañuy bëgg Ndiaga Ndiaye bi paan am ay problème nga ñëw ñàkk sol yëre ba xotteeku xam nga ñu yëkkati jox la am na lu ngeen dégg ci waxtaan bi yéen ñëpp concentré wu ngeen question yi na daw kii ngeen am tay ci émission tabu mu ngi tudd. c'est un grand monsieur amé Sy bi jekk mbaxana mais tey indiwuma ko malheureusement koor ma japp dama ko fàtte. <laughs> posé leen ko seen i question. asalaamaaleykum le le grand monsieur ma ngi lay nuy Voilà, donc c'est avec euh, beaucoup d'attention là et suivre ce, ce, ce qui, ce, cette intervention.

dañ la fa def loo xamante ne que daf la métti ba mu jaral la par exemple ngay nar a régler benn compte personnel ba euh, je vois comme si ma mënoon wax sax un lion un lion gaynde bu ñu gaañ un lion blessé xam nga qui a la soif de la vengeance quoi est-ce que réellement sama njort loolu la mooy sama première question euh, seconde question moy euh, tay bo nee ken diriger ken foko wék ndax da nga bëgg pour l'anarchie bëgg da nga bëgg def anarchiste ou bien yow da nga que aussi opuñ compétence et que yow si yan critère nga basé aussi pour wax que ne yow tey jii kenn mënu la jiite bu fekkente ne par exemple da nga am ay critères yo xamante que da nga ko wara tek aussi nga tegal ñuko ko bu fekkente ne si wàllum compétence la wala walum ñom sen incompétence je sais pas wala ñom sen légitimité mo mo poser wu par rapport ak lolu quoi mo bëggon nga léral ñu lolu noonu mais toutefois est-ce que bëgguloo déjà samp li nga xamante li ñu wax anarchie. waaw Tidiane de la nuyu. waat di la sant bu baax di la gërëm si li nga xam ne tey mooy ñaari question yi ma dégg nga nga posé ko tey mooy am cawarte tontu si question yooyu bu baax a baax a baax a baax bi si jiitu dafa si tënk rek dafa mel ni da wax ni da nga yëg si ñun ne dafa mel ni ay gaynde yu gaañu lañu maanaam dafa am certes lu ñu dund loo xam ne tey présentement si suñu diggante nit ñi bon dafa dafa dem ba mettre ñu en tout à fait

si si forme wala ay fonds yoo xam ne tey bu correspondre sa ak li ñu tax a jóg wala li ñu nag loolu parfois dafay fecc si suñu communication xëy na certes c' est une erreur ñu siy jéggalu waaye lu ñuy yëg la te li ñuy yëg bokkul ak li ñuy teg ñun dañuy yëg di wax te li ñuy yëg di ko wax dafay correspondre ak li ñuy dund parce que amuñu ñaari forme amuñu ñaari façon benn kanam bi la ñu yor dañu jàpp ne mënuñu si mooy yàlla di si jaamu yàlla moo waral parfois wax ji di dëgër wala mu natti waaye yàlla seede na ni bu ñu ko génnee suñuy bu ñu ko génnee mat na si ñun beneen question bi muy affaire diriger euh, je pense que t'as pas compris parce que nag bu ñu jël euh, mot boobu rek exposé ko wala dugal ko si forme euh, président bi wala ministre bi wala maire bi fi ma toog ni tey le président Macky Sall mooy suma président fi ma toll ni tey. le maire ministre de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, moi, je suis maire. En parlant de maire <laughs> euh, Abdoulaye Diouf, vous avez des divergences, vous avez un problème. Ouais, dans un pays, il faut que moi, gouverner, un coup opposé. Moi, voilà ça. yàlla bu ko neexoon catholique do am yéeféer do am wala boo fi amee doo fi naan kaasu ndox ataaya yàlla la neex mu créé parti yooyu yëpp mais yàlla moo jëkk ça dafa war a topp sa ginnaaw est ce que du yaa war a topp sa non du problème kuy topp moroomam c'est à dire Ousmane bu gis-gis yëpp nekkoon benn benn arme du jar bul fàtte ne arme bi nga defar moom nga ma jaay ma rey si Moussa bu gis-gis yi nekkoon benn xoolal arme du jar. parce que kenn accepté loolu parce que daaw li mu defal dada ak li mu la defal da nga taxaw révolté wu. non may ma ma prononcé si li nga xam ne moom la sëriñ bi wax léegi mu jëm si affaire dirigeant xam nga diriger nit li tax ñu di ko bañ parce que dootul am dootul am dootul am parti.

ma gis ne forme bi ñu war a duggee correspondre ak sama rek ma bàyyi la fi mu toll est-ce que du loolu moom la ñu war a dund tey. non non non pas du tout Ousmane lu jamono tëradi tëradi tëradi dama koy wax ci ko def lu jamono tëradi tëradi dina am ñuy jiite jàkka yi am ñuy jiite jumaa mais est-ce gën a tardé yow. quatre-quatre bi ngay ñëw Ndiaga Ndiaye nga ñëw. est-ce yi nga àndaloon yëpp ñu ngi wax ay quatre-quatre. non déggoo je le préfère mieux Ousmane. baña agn baña reer baña ndekki moma gëna lek lo xamne bu ëllëgé may jakarlo nit ki mu empêcher ma wara dem wala ma wara je préfère mourir de faim que ma lek ginaar yo xamne dafa dox sama digënté sama dëkk parce que sama cadre rek la Ousmane awma leneen awma auto awma kër awma awma dara xam nga am suma dama japp ne ko question euh, dama am lu la bëggoon laaj ñu tax nga am fit taxaw di wax ak gars di dafa am lu la sa gannaaw di la dëy wala ñi nga saaga da am da nga ñoom maas ak ñoom am defandoo foondoo wala soit da nga ñëw gis leen ñu def na ko ci du noonu sekkal dalu si loolu ba taxaw nga am ba taxaw nit taxaw nga taxaw di ko joxañ di ko dakkal wala nga di ko wax loo xam ne nekkul deuxième bi li tax ngay taxaw na léegi man dinaa ànd ak nit liggéey moom moom nga dem ba ci biir rocc ko di révolté wu lan moo waral révolte boobu ak la moo tax xadar boobu di génn si yow. waaw man sëñ Saliou man for naa si wewu bay ne dafa laal laalaake dafa tooñ wàlliwu dafa laal ku warul laal moo tax affaire boobu di koy animé à chaque fois affaire boobu moo ko topp xam nga loolu man dégg naa ko. maa ngi lay sant bu baax si question yi nga xam ne tey moom nga mën a laaj waaye di dellu si waat di la tontu rek ni la euh, saagoo kenn. tahu daaw saaga nga kii. saaga nga Moussa Moussa yaa nga fa. ñii ñu nga dafa am Moussa nga xam nga lu nekk chaque chose en son temps nga jeex Moussa wa ngi nii xam nga bu ñu bu Mose am na wala amul même eh, moi amul tabou amul tabou Amna wala amul j'ai pas peur de le dire mais dama am wala amul non ah non non am wala amul non dama ni amul tabou lañ nekk est-ce que moom la won? non ndax wayo gis nga gis nga ko moom même ma tudd Ousmane ma développé ah, est-ce que moom dama ni Moussa mag la de dama ni pour être clair avec tout le monde man nee naa leen début bi je ne suis pas un fou du ma dof je suis loin d'être un fou si li nga yaakaar yow te j'ai compris mais man am na nga mais dama wax ni

kuma xam sax xam ne naturellement nekkuma genre boobu nekkuma genre boobu waaye nag man li ma moomal sama bopp laa man am man dinaa ko gardeel sama bopp ba lu ma si fekk ma xam ne loolu moo ko si war a fekk je pense que loolu mooy première question bi jëm si affaire saaga yi loolu du ma si du ma si du ma si sori parce que defe naa ne ñun nit ñi xam nañ man de tamit xam naa en tout cas daal képp koo xam ne man am attaqué nga ma man dama lay attaqué man loolu moom si man la bokk

noonu waaw laa tontu léegi des na beneen. deuxième boo ànd ak nit demul dara tel xam nga. ki xam nga accident yi am si àdduna bi yëpp signalé gauche jàpp droite bee ko indi. Hmm? signalé gauche jàpp bi moo indi accident yi majeur accidenté yi am si àdduna bi ko Ousmane man damay topp nit. te xam nga nu may toppee nit dafay bokk ci samay raison man damay bàyyi xel li nga xam Usman ñu boole Ousmane bu fekkee man ak yow dañu ànd ñu def plante bii nga roose ma roose ñu ji di roose di roose ba nit ñi fekk ñu fi ma taxaw ñëpp taxaw nga bëgg wax ne si game dañ la wan garab gi rek nga xëy mu nekk fi dama lay wax ne la da ngay fenn ñun ñaara ko fi di ko roose na ba nekk

parce que loolu yëpp nekkoon na fi te fi li fi dañ ko fi gars dañuy dañ valoriser man la valoriser dama lay dévaloriser xamal la ne sax parce que c'est man loolu laa gëm man ba concept boobu dama si concept boobu du ça fait 35 ans que je l'ai connu euh, ba concept si euh, am dañuy delluwaat si ànd def te yàlla tax lël bi dafa war a commencé euh, ren ñaati xale ngay xarafal. incha allahu rabbi maa ngi envisagé xarafal lu lu mu néew néew néew cent enfants. cent enfants. Euh, am kañ lay commencé le 20 juillet. le 20 juillet laa bëgg mu démarrer mu neexee yàlla. mu war a nekk ab jeudi. jeudi le samedi 19 août mu jeex.

qui est, euh, comment il s'appelle encore Diagal euh, Fall dañ ma doon wax ni ma dafa am yoo xam ne yàlla daf ñu ko sant bu ñu neexee dañ ko war a def bu ñu naxee dañ ko war a def am yoo xam ne ñun ñoo ko war a ñoo koy def suñu volonté bu ñu ko defee mu gën waaye bu ñu ko deful yàlla duñ si bindal bàkkaar mu bokk si yi nga xam ne lu mel ni ay julli ay wor et cetera yooyu da ko war a def en tant musulman mais tey lu mel ni comme concept lël bii bu ma ko deful te teguma ko mën naa ko bañ a def kon bu ma koy def dama koy def ak cœur ouvert parce que la ma siy xaar xaaruma ko si benn Ousmane wala si benn Moussa waaye dama koy xaar si yàlla parce que huit ans maa ngi si nekk li ma si dund see obstacle tey mu ëpp foofu te xam nga si yenn mais terewul damay jàpp rek ndax ba ma siy dugg ña ma àndaloon jëm si liggéey boobu dem nañ matoon nañ quinze personnes mais dem nañ ba bi ñu waree xëy def opération bi j'étais le seul ump la ñëpp dañu bàyyi li tax ñu bàyyi ñii seen waajur ragalloo nañ leen ñii ragal ragalloo nañ leen ne leen lii ak lii ak lii bu ngeen si duggee lii mën leen si fekk ba ñëpp bàyyi keroog au passage may nuyu sama sëriñ Mame Mbaye Laye keroog moom laa dese woon comme dernier pion bu ma demee seeti ko waxtaan ak moom mu fital ma guddi googu même laa amoon yëg-yëgu ne man sax est-ce que du ñëw jël moom ciseau dagg kooy xale yi jongal leen yaa ngi ma dégg. loolu jàll naa man amatuma lu may ragal si loolu waaye dama bëgg ñu xam ni li may def ak respect bi ma ko jox ak série bi ma ko jox mooy waral boo may xool si moment boo koy xool si moment yooyu doo ko xam ne moo tax sànq bi nga xamante ne nii euh, Moussa wax na ne est-ce que moom la euh, ma xam ne euh, Moussa dafa dégg dëggantaan parce ñu daaw dem nañ ba jàkkaarloo ak moom ñu ko parce que boobu ñu ngi waroon a dugal euh, njulli yi police ñëw dox digganteem ak njulli yi mu leen dox leen sama diggante ak njulli yi jaar fu bon da ngeen di faatu léegi am te trop mystique da ngay suul ay niw di sulli ay niw. Ousmane di ëlbati bopp yi. wala cosaan ak aada bi dama rek taxawal rek bopp bi tegu. man je suis né je suis né xala je suis né composé de deux ethnies man ñaari ethnie yi ma bokk. su ma bàyyi nee naa la saraxule piir la su ma yaay lébu piir la Ousmane dama am cër te Ousmane bari na lu ma gars di defal mën naa ko defal ma bopp man yaa ma dégg beneen bi mooy bari nag ku ma ma fiy seeti sax sert dama leen di tegginal rek mais Ousmane bul fàtte ne dama am cër te damay déewaale gars yi bu baax a baax a baax nag dama am cër billaahi wallaahi taala koor gi ma nekk nii dama am jël bu baax. Euh, koo nekkal fanweer ak juróom. bu ñu fàtte loolu su la waxee dafa am ak cër euh, war nga ko gëm 2008 la ASC bi gëj a final da nga demoon jël euh, affaire bi en fekk gëjoon nañu finaal nga ne jël leen jox leen ma ko ma yóbbu leen jël affaire bi yóbbu leen su li niw yi nga dem si armée li sulli niw yi dëppal ñi seeni i bopp yóbbu ko droit ñu jël coupe bi indi ko <laughs> ah xalal xalal ñu jël ñu jël coupe bi indi ko ah nga am ak ñoom différence ba tey jii nii ñu nekk si problème yooyu ba léegi 2008 est-ce que mën nga ma ñëw laa si histoire boobu quest que qui s'est passé. Ousmane bàyyil bàyyil bàyyil loolu armée li dañu fa am ay wéejur am fa ay mbokk keneen am fa ay mbokk. yaa ngi si émission. waaw bu ñu émission bi la tudd amul tàggu bu dama ni. armée yi dañu fa am ay mbokk. ndax dama sos. wala ah. li ma am na wala am déglu ma dama ni. non est-ce que li ma wax waaxu dama ni. non non dama ni non c'est-à-dire armée fa am ay mbokk. yi ñu fa denc émission amul tabu tey. émission ëlbati bopp ëlbati kii ëlbati kaat. non cër si képp ku fa am ku mu def. non est man dama sos. alors ah déglu dama ne. non da nga may wax rek ne man da nga sos wala sosoo affaire baa ngi nii caméra baa ngi nii yaa ngi nii toog. non dama ni. non yaa ngi sa émission amul tabu da nga dem woon boo ma invité sa émission amul tabu lenn rek. waaw mais dama ni dama ni man jàmbaar respect te du ma dellu naaw non dama moo tax nga yow xam nga yow xam léegi mu ngi baa ngi nii. non dama ni yaa ngi nii. dama ni waaw man. lépp lu ma mos a wax jigéen ñi def naa man. waaw te très mystique. dama jàpp ne. dama jàpp ne trop mystique wax moo tax li ngay saaga ah, nit ñi ak li ngay def non non non du mystique du mystique du mystique du dara Ousmane du yow toogax yow sax wóoru yow toogax yow sax wóoru euh, pour la respect bi ñu war a am tey si ñi nga xam ne ñoo fi jógee Ousmane boobu ba léegi ñu ngi dégg problème yi xew si armée li si néew yi si julli beeg suul beeg defaraat beeg laxasaat beeg yu mel noonu te dañu war a am respect bu maximum parce que nag ñooñu fa dëgg ñëpp fii la nekkoon ala kulaali ñun fii ñu nekk ñu fi jóge tëdd foofu ñu leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana ñun ñëpp si barke yonent bi am naa jomb teg loolu suñu diggante ñoom parce que cër la du ma rey du ma dekkal kon du ma suuli di ma suuli di sulli waay Ousmane daf may naqari sax ba may dugal si affaire football ci mu toll. waaw ndeysaan football ñëwal si football waaw. parce que j'ai vécu une histoire boo xam ne bokk na si li ma gën a metti si suma dund. parce que je me suis benn année si nawetaan ñu jox may responsabilité ma créé yow xam nga ne man gagneur la yàlla dimbalee na ma loolu nag Ousmane li may perte bariwul de. mais Diallo ngay sulli ay ñi di suul ak yooyu. li may perte bariwul de. li may perte bariwul. bi ma ñëwee tamit engagement ba ñu ma jox dama jël engagement yàlla defal ma ndam loolu ma jaar si fu nekk dund si lu nekk daj si lu nekk waaye man noonu lay doxee. Yo, nekk nga au Japon yebal ma yebal fi benn télévision japonaise ay tubaab bi ce mm-hmm. Hein? ak ay matériel yoo xam ne ay millions lay jar mm-hmm. ñu ñëw fii cëpp à mon nom pour ak man bi sans aucun sou. Mm-hmm. wallaahi du ma ko fàtte mu. Hein? sans aucun sou sans aucun sou. quinzaine une quinzaine de japonais. ak des matériels très professionnels pour toute une journée. sans aucun cent franc joxuma ko ab dërëm yoo gépp ne tedd na yaakaar ne ay milliards ma ma indil la ay mbër indil la fa ay simbakat indil la fa ay kankurang indil la fa ay ndawraat bi indil la fa lépp sans aucun sou loolu dama ko a teel na ma parce que man la woon pourtant am naa kersak sax taxaw ak ñooñu di leen jumaa la woon en plus jumaa la woon si troisième nit ñi jàpp lool waaw Ousmane keroog na ma bàyyee sama julli di taw di waaxu di dugg di genn moins de 24 heures pour réaliser loolu ba réaliser wu est-ce que ñama ma doon romb di dem ak di ñëw ñooñu mën nañoo gëm ne Ahmed mi li muy dox ni yëpp c'est gratuit est-ce que man nañ ko gëm mais yow xam nga man xam naa c'est gratuit parce que ba tey ki may wax ak yow nii tubaab yëkkatiwul 100 francs jox ma yow yëkkatiwoo 100 francs jox ma. ab dërëm am dërëm mais esprit boobu est-ce que c'est facile à faire comprendre les gens que loolu mooy dëgg. nit ñi jàpp nañ ne tey diggante robinet bi ak fii ma toog sax boo ko ñëwaat am na un intérêt bu si loolu. kon def te yàlla tax dafa war a am <laughs> dafa war a am dafa am na c' mon statut Ousmane def te yàlla tax man je le fais ah te dàquma ne amna na ñu koy def am na ñu koy def jusqu' à tey fii ñu toog am na ñuy def te yàlla rek tax am na ñuy def nag te leneen tax am ñoo xam ne nag <laughs> li ñuy def yëpp dañ si am dañ si am lu ñuy xaar. am boo waxee man xaaruma dara boo waxee da ngay def te yàlla rek tax. dëgg la man li ngay wax ni je suis témoin tubaab yooyu man maa leen jëlee woon Japon andi leen fii. waaw léegi même ma àggali ma jël samay moyens man Ousmane xam nga ban âge laa commencé yeewal su ma bàyyi xaram Tabaski xam nga ban âge bi xar mi ma jëkk a yeewal suma ma bàyyi gàtt bi ba indi ko ñafe ba jëndal ko suma bopp ëppul xobu garab bi keroog bi ma ñëwee nga ko bàyyi. xar mii de laa xeeb lool waaye moom laa am jox la il a pleuré nekk xale bu ndaw moom dama doon dem géej di teeru gaal yi di taxale di jënd xar moom à bas âge la commencé di tabaski xam nga ne at ma parce que j'avais cent ma jël ma dem regroupement dégg ak Diop maa koy nuyu au passage ma dégg Diop suñu benn jour. ak coach bi Bab Samba Ndoye Elvis mooy root équipe bi mu wax benn wax bu am solo mu ne fi mu nek ni joueurs yi dañu sonn dañu saturer parce que dañ toll fo xamné un footballeur foog ñu soulager ko génne ko si terrain bi dugal ko si beneen terrain pour que mu mën ñëwaat adopté wu ma ne loolu ça fait partie de mon rôle parce que en tant que chargé de l'organisation de l'ASC Médina ma au dirigeant ñen xayna buñ ma déggé dinañ ko xam ku melni Baye Binna ku melni ni Abdou Naar président o Mbaye Beng informé ñi nga xam ne tey ñoo yor équipe bi ni leen dafa am luma ma dégg mu concerné concerné ma man en tant que chargé de l'organisation organisation et je veux organiser ñu ma ah, defal dank dara amu fi dañ leen am naa xaalis j'ai pris mon argent kër Pambay ñaan nga yàlla na ko yàlla yërëm foofu la ASC dana mas di nek man leen jarul ñukoy changer changé jarul ñu koy yóbbu nañ ko bàyyi sur la même place mais je vais préparer ma togg samay ginaar jënd samay poisson keroog lu jour yi commande ma jënd ko j'ai tout acheté Le football ak Liberté 4 ñu dóor ñu ñu ne dama sacrifier équipe parce que xaalis boobu ma investir dans ce jour la Liberté 4 ñoo ma ko jox pour que ma sacrifier équipe ma toggal leen ay ginaar jëndal leen ay poisson ay bananes et tout loolu moo sacrifier équipe bi waral naa perte te ba fii ma toog di wax ak yow Ousmane boo gaaree woon oto fii si biti def si un milliard ne ma dugal ko Liberté 4 jël oto bi ak un milliard ma ñàkk ko billaahi wallaahi taala xamul fan la Liberté manuma naa fii la Liberté 4 commencé ak fii yam léegi nag gis nga loolu ba fii ma toog di wax ak yow ni dafa nekk si ma xol parce que mënuma mënu la dañ kon j'ai vécu cette histoire te loolu xam nga nañ ñoo ko créé ñi nga xam ne manuñu ndax man yàlla ma dimbali Ousmane yow xam nga loolu lu ma lu ma bëgg a def ah lu ma bëggul def mais lu ma bëgg a def yàlla defal ma si la parce que noonu laay doxee parce que je vais jamais à demi mesure Ousmane bi ma gën a nekk xale di sawlal sax mu mosaan a saw matelas bi une semaine kenn du si tëdd day loolu ok dañ weer une semaine di defantu ma suma defantu nga di def lay def ok c'est très important pour nga xam question sëñ bi su ma la déggee dafay mel ni yow damay dégg say wax ne yow looy def dëgg moo koy lal yow dëgg daal moom nga bëgg di imposer nit ñi loo séqal nit daal yow si dëgg nga ko bëgg di teg ba pare ma laaj la yow saaga yi ngay saaga nit ñi est-ce que yow li nga xamante ba ni moom nga bëgg a faj saaga moo koy faj wala am na leneen loo xamante ba nii moo koy faj lu leneen lu dul saaga daal loolu laa lay laaj. waaw bonjour sëñ bi maa lay nuyu ma Binta Jaxate laa tudd. waaw dama lay laaj ndax yow est-ce que li ngay def sóoraale nga ci say doom ndax tey jii yow nee nga kenn du la diriger yow da ngay saagaate ndax tey jii ñaan nga yàlla nga am say doom ñu toll benn niveau bi nga bëgg leen a diriger ñu leen defal leen lii wala ñu toog ñu la papa defuma wala nga bëgg leen a diriger ñu bañ ñu ne doo doo ñu diriger ndax moomoo ñu wala ngay wax ñu saagal ndax imagine nga yow yooyu ngay def ñooñu ëllëg mu ñëw tourner sa kaw tourner euh, këpp ci say doom. ndax yow imagine nga loolu do ak doom nu mu neexee ci xol say doom lu tourné di def loolu ñu ne papa yow doo ma dirigé ñu bañ taxaw ni la doo ma dirigé wala ñu saaga la yow. euh awa si sa question du moins sa Fat Bintou lu jëm si njabootam doomam xam naa benn domam boo xamantene ni moom yarul moom yarul doom bi dafa ragal mun naa dafa ragal doom bi sax quoi parce que xale bi mooy diriger xale bi lu mu wax moom loolu la xale bu ndaw xoolal lu xale bi wax rek day wax ne waaw xale bi mais ñu mag ñi moom moom famille yi comme tàng boobu ngay wax noonu buñ ko seen rek dañuy daw moom pour nekk ak moom une de temps loolu amul mais xale bu ndaw bi moom moo ko domine saaba saaba da nga ragal waaw soxna si maa ngi lay sant bu baax si question yooyu c'est am na solo li may commencer rek mooy bi ma waxoon sànq rek dafa mel ni yéen da ngeen fi nekk waaye nekkul leen fi quoi dama xamul ndax koor bi moo leen jàpp wala da ngeen koy dégg neneen j'ai beaucoup insisté si point boobu ni leen du ma dof réewuma. yow da nga jàpp ne doo dof. même tout à fait man nag maay dof bi nangu ne damaa dof. j'ai beaucoup insisté sur ce point ni leen dofuma jinne jàpp ma et j'ai compris lenn lu nekk lan mooy procédure. kon duma am droit bu may permettre may saaga di saga, di saga, di saga. kan lay saga? ak lu tax may saga, di saga, di saga, di saaga di saaga. Kan c'est vrai c'est juste pour vous dire man am saaga ma kenn. da ngay saaga Andiaye. pour être clair ah. da ngay saaga El Hadj Malick. saaga ma kenn ah. da ngay saagaate. c'est-à-dire si ñun su jeunesse si ñi nga xam ne tey ñoom la ñu yàlla booleel ñu partager suñu life loolu kenn ku nekk si ñun am na ko koo xam ne tey am na ñu muy def ak moom am na ñu muy séex ak moom. mais tey forme ak façon il faut que ñu koy ñu koy xel xam nga à travers cette télévision waa ji toog ne da ngay saga El Hadji Malick mettre à mal ak jullit yi bul me mettre à mal ak Tidiane. c'est-à-dire euh, c'est une façon de communiquer qui est El Hadji Malick El Hadji Malick mooy ki nga xam ne tey moom Sénégal si wàllu tarixa Tidiane? kon respect boobu tey nous war ko à travers moom turoon waxuma la personne mais que ku nous ko qu'on kon du du en tant que Ousmane mu jàkkaarloog El Diouf. non, c'est idole numéro un. na na na yow fi mu non non non mais xam Non, non El Diouf je l'aime beaucoup. xam nga lutax non non ce n'est pas pour xam nga El dama ko naw xam nga lutax ma naw ko. gis nga guerre bu da am El Hadj Diouf li ma ko nawee du dara je la billahi mosuma mosuma ko gis ni ni budul à travers la télévision mosuñu gisante ni je n'ai rien contre lui hein aw ma lu may xaar mom moom moom hmm? bés bu mo yoon daboon sax mun bu ma la del faalew ma mais xam nga lan laa naw ci mom hein xam nga ala sa façon Macky Sall sama xarit la ah Macky Sall faale ma ko moom sa façon ah parce que damay gis ne même moom bu xeexee ak Moussa xeex ak Moussa xeex ak Moussa ba gis na Moussa def na benn taxaw def bu baax dafay taxaw mu seedaloo te loolu dafa bokk si ay jik ay jikko ay jikko yu baax xam nga lu ma mënul comprendre nit ñi jël benn nit rek bonal ko si lépp si fépp si façon bépp mais nag nit donte dafa bon éternellement am na benn seconde sax bu muy def lu bax nak donte arroser garab gi la je pense que man lolu la nawé El Hadj Quand kon si occasion bi permettre nga ma may invité tey sénégalais yëpp ah à travers tay seen site internet bi hein nañu def ay choix député comme El Diouf parce que dañuy gis ne il représente toujours le peuple te Ousmane amna luma naxari trop te bis bu damay déglu la mam Abdou waxone bay da baax yàlla yàlla yokk ay leeram ñi ñuy fal nañ leen di seetaan Ousmane man dama jàpp ne xas la sax si tay si suñu suñuy suñuy ndaje maanaam ñuy tànn ay nit ñoo xam ne amuñu benn compétence di leen mettre à la place yoo xam dañuy représenter askan wi yëpp benn kàddu bu wala ben signature bu ñu joxe sànq askan wi yëpp loolu war nañ ko set te député yi dañu war a ñoom foofu ñu nekk muy ensemble bu amee doole lépp am doole waaye bu nasaxee lépp nasax kon yan façon député la ñu war a teg foofu te Ousmane ñun dañu war a defaat taxaw seetlu si ñi ñuy tuddee tey ay homme d'état ak ñi ñu tuddee tey ay homme politique Ousmane am na différence bu mag. Mhm. un homme dafa jaboote un homme dafa limité un homme politique sama soxna sama kër sama jabar sama doom la mais un sa façon. mooy li si sax moo koy gën ñor biir kon nañu nañu nañuy xoolaat loolu te Ousmane ñi ngi jëm si ay législatif war a ay député yoo xam ne tey ñooñu war a pour ans Ousmane député bu taxaw wax rek nga xam fi muy défendre la pour le Sénégal député yi nañu xamné ne seen mbubba yooyu ñu sol à partir buñ leen jëlee dénk jox leen ay responsabilités yóbbu leen ensemble nañ xamné ne waratuñ fa taxawal kenn ku dul peuple bi parce que man li nga xamné momay moom may naxari te aw ma accès bu ma permettre ma yegg ci président wala ma yegg ci côté yo xamné tay fofu la ko mëna waxé ba ñu mën ko dégg je pense que ñom ñoo wara nek suñu lami comme naka rappeur bi doon waxé ñom ñoo ñoo je suis la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche kon loolu war nañ ko xam

esprit de dirigeant bobu ñu am mu comprendre esprit c'est une mauvaise esprit parce que ki nga xam da nga japp ne yow soxla xam soxla xam maram soxla xam raflem soxla esprit soxla xam neex même contribuer si li nga le social le développement ludul application rek nga koy denk dem taxaw joxel dama wax ni man ba ker baa maa dee du ma nangu dirigeant. dinaa nangu ku ma yilif parce que damay yilifaate dama am soxna am ay doom nekk seen responsabilité mais tey du forme boo xam ne dafay dafay taxaw si ne suma ma doom day taxaw ne ma doom ma diriger du ma diriger doom pourquoi may diriger doom diriger diriger doom mënu la weesu tey man nekk ci safaan di fa diriger di fa yóbbu samay doom diriger diriger diriger mënu la weesu tey ma nekk ci safaan di yóbbu sama jabar di ko dugal diriger ba tey mënu la nekk mënu la ñàkk nekk nga am sa gel yàlla miina la ak moom fu la neex nga watat ko tëral ko fa sëyeeg moom wala lu la neex nga def ko loolu yëpp ay système mu diriger la mais bu fekkee ku nekk am na cër si kàddoom ku nekk am na cër si boppam je pense que loolu day man a ñàkk kon yéen bu fekkee yéen da ngeen bëgg a nekk ñu ñuy diriger nekk leen ko mais man ba kër ba ma dee du ma nekk ku ñuy diriger. am ku ñuy yëlif nag dinaa ko nekk. ba kër booy dee doo mu mel ni doxale ni si jàkk yi doxale ni si sàpp yi ni ñuy doxale si pénc mi oustaz micro même micro bi ñuy partagé bi nek festival Salam moom moo nek si moom la Youssou Ndour di waye eh, ri ri riigu Ousmane man sama yoon nekul ci festival bi Salam parce que fii ñu nekk xëti xelli ba màkk ba xëti xelli amul festival diine amul festival buñ ñu nax donc je suis pas pour loolu fa ñu may béggee ku melni jogo afi ku nek xam na ma ak moom sama réel partenaire la lu mu nek ma nekk si festival amul jeexital lan mooy festival diina amul festival am na lan la am jàng jëfe lii la yàlla tere lii la yàlla santaane Ousmane loolu warul warul porter sa nom xam nga war a tudd mbapat ku nekk dafa dem pour bàkku ji. c'est concurrence c'est ku nekk dafa dem pour bàkku ji sëriñ si ñooy mbëri ñoo war a bëri loolu lay définir Ousmane dafa am yoo xam ne dañ ko jéem a comprendre dañ ko war a comprendre. waaw li tubaab bi bu ñu demee tey ba créer la moo marabout marabout on l'écrit avec M A R O T U T e. marabout anglais du arabe tubaab la xam nga ne la tuddee marabout les gens paresseux ñi nga xam ne si benn benn ruq lañu nekk dajale ay milliers d'enfants ñu jalwaan di leen jox ñuy lekk di naan dañ leen tuddee ay marabout c'est un oiseau moo nekk si saabu bi tàllal benn tànk bi banque benn tànk bi loolu mooy marabout ñun yoruñu ay marabu ay guide religieux la ñuy yor yàlla nañu yàlla musal si être avare des marques nañu dafa am yu ñu xamul wala wax yu ñuy jaxase te waruñu ko jaxase Ousmane critère bi gars yi di def jëmale ko tey si exception yi am si weer yi muy koor gi mën nañu wax ne ñoom ñi koy wax ñoom ñoo jëkk a juum Ousmane ñaata oustaz ñooy jàkkaarloo ak télévision bi nga jàkkaarloo ñoom. ñu waaraate waaraate waaraate waaraate waaraate ba à un instant ñu ne nañ dem publicité teg benn Wally Seck ñu naan riigu riigu riigu riigu riigu riigu ñu ne si jàkk parce que ñu ngi si salle bi toog ñaata ustaas ngay waaraate ba si biir ñu dog waaraate bi publicité lu neexul yàlla bu subaa ñoom lañ leen di fay te dañuy bu ñu fàtte ni li yàlla da li yàlla araamalee si jullit mu naan sàngara di ko jaay wala muy daw oto ba wala mu di ko yóbbu noonu la araamale si jullit façon liggéey bu nekk nga liggéey ko. kon yow TFM ñi fay liggéeyee da leen di joxoñ baaraam tuuma. dama ni Youssou moo leen di fay du ma teg TFM baaraam tuuma du ma wax kenn dama wax ni képp ku nekk si sens boobu yaa ngi si biir. parce que nag bu ñu fàtte ne ordre d'activité yi nga xam ne tey moom la ñuy partagé yàlla dafa wax ne jullit bu nekk. lii la am droit liggéey lii amul droit liggéey ko ngir la nga xam ne moom ngay wut da nga ko war a sellal ngir say njaboot da nga koy jox mu mën a sell si ñoom te Ousmane danaa xamoon ne lépp lu araam boo ko dugalee si biiru nit boo léegi di nga ko layoog moom est ce que loolu responsabilité la. dégg naa moom kon kon théâtre bi kon théâtre boobu ñuy wax naan est ce que ci kii nii yëpp li ñu war a jëkk a def taxaw seetlu mooy ñun ñi nga xam ne ñun la ñu dénk voix ñu war a wax est ce que fa ñu toog di wax c' est logique ou bien c' est pas du tout logique. ndax fa ñuy war nañ koo waxee ndax la wax war nañ koo wax. kay du li nit kii di def rek moom ngay nekk di wax. waaye mais Ousmane sa bopp ba xam. est ce que est ce que xam nga ne tey ñun jullit yi jàkk ji ñuy jullee lu fa manqué jullit ko fa jëlee est-ce que xam nga ne tey penc mi perturbation ba fa nekk jullit yaa ko fay def mbalit ma fa nekk jullit yi ñoo ko fa teg man mosuma dégg benn coow boo xam ne dama génn acte ba ñu naan téyel Jean téyel Paul mosuma kaa dégg. waaw Maman Ndao sa waxee. loolu ils sont très éduqués. voilà waaw léegi bu fekkee ne forme boobu tey ñun nañu waroon a mel ñoo sàggan wala ba xëy na dañ tëddoon di nelaw ba ñu changé ñu mu mel ni ñaari liir yu ñu juwaat kon nous na ñun ñoo wara a dellu suñu bopp ñu xolaat ñun ñoy ñan. macha ñun ñoo wara a On suñu bopp xolaat ñun ñoy ñan waye nak ma fatali ko rek la ma sa ça? On religion les gens indi ay critiques ci nit ñi mané ko déllu ci Saint Coran ba. boo demee si alxuraan rek la mu la wax rek loolu la alxuraan ba set na sell na waaye nag am na ñooy doxal beneen doxalin boo xamante ne ni bokkul ak la nekk ci alxuraan bi donc ñooñu nañuy doxali mën nañu mbubaloo jullit fekk sax du ñu ay jullit donc kooku moom day nekk beneen affaire boo xam ne. mu am beneen question defe naa Saliou bu posé woon na ko bu si mënee dellu si waat rek parce que question yi dafa xaw a ñëw. sa njaboot sa njaboot. waaw waaw waaw waaw boobu jàlloon naa si ah. non non waxuma si yow yaa si wax. waxuma si ah yow yaa ne saaba nii. xanaa saaba mooy fóotal boppam. yàlla dogal na boppam xoolal mooy fóot mooy paase. mu ngi ni mooy togg gis ngeen ko si vidéo yi. xanaa yàlla dogal na ci ci ci àggul am naa soxna su baax ñaari bant yàlla dénk kenn ka jigéen kenn ku góor te je je peux même dire ñoom sax sama tour la ñuy annoncé. dañuy dañu amet dañu directement awma problème ak soxna awma problème ak doom loolu xam naa si dara defe naa Moussa mi ak Bamba mi yàllu nañ sama kër xam ñëpp yàllu sa nañ sa kër non mooy li ma rek cest à moment bi ma waree défendre man défendre dama koy défendre à ma façon de même que suma kër nga def lu ne parce que man dama dafa am lu ma jàng man du wax te wax jotul du jëf te jëf jotul bu yaboo nga kabine sama kaw mais tant que seluruh moom pour wax si loolu du diwah diwah wax parce que aw ma habitude di wax di wax di wax di wax moo ma rek dootuma mais problème di ma gis di tiit aw ma problème soxna di ma gis di tiit waaye ku responsable laa ku yor sama soxna laa man waaye nag koo xam ne tamit bëggul ku ko yab laa moo tax may moytu xale yi seen système yi ya, ma moytu parce que dafa am man nu ma bëgg a dunde te da ngay gis plusieurs fois ne soxnay tey yi ngeen baal ma ma boobu wala façon boobu dafa mel ni luy daax dàqu te man dama dama damay sentir toujours si sama grandeur la man ba ker baa may sàngoo suuf sama jabar dafa war a nekk samay digal ñii nag classe gi parfois dañuy bëgg maanaam nga nekk seen i seen i digal ñoom te man mënuma loolu ah moo tax même je l'évite dafa am yoo xam ne nag góor bu ko pertee si këram lu mu yaakaar ne deseeti na ko fa amu ko fi te gis nga gars yi dañuy juum li tax ñuy juum dañu jàpp ne la dernier rendez de d' être d' être mooy ab jógal te loolu nekkul le dernier rendez-vous. jógal mooy jógal mooy maanaam góor xoolal góor loolu moo si mujj sax booy xool xool xam nga li ma la góor moom loolu sax moo si mujj ah mais dafa am yu jiitu yooyu gën ko gën ko gën ko am importance. bu fekkee yooyu yow da nga ko néewal doole favoriser lii moo tax chaque jour da ngay faible parce que li tax ngay faible au moment loolu dëgmal la wala loolu dëgmal ko toujours da ngay nekk dans dans un sens boo xam ne da ngay da ngay nangu leen mais nañu yar suñu bopp yar c'est très important waxoon n'a ci benn émission nit warul bàyyi boppam rek mu nekk laisser aller yaral sa bopp bu la kenn xëllantoo dara. li dàq si àdduna bu ñu la ko tegalee mu bëgg a ànd ak chantage wala yabeel wala yu mel noonu suur ko te yàlla rek tax. voilà yàlla sa bopp man man laay dundee. mu man gis nga. xala toujours ma wax ko gars yi di rey man xala bu yaboo nga nekk indo devant mes yeux mais su ma sentiree ngay def yëfi dof rek man sax barab samay cër sax man laa ko yare man jotuma sax cër yoo xam ne dama la naan toogal fii nga dem fële man gis nga. lu ma yëg mu yëg que lu ma yëgul lu ko yëg. mooy maanaam. te loolu de bu fekkee ne bu ñu la tegalee. Euh, il faut être sérieux dans ce monde. ay man nag sama gis-gis certes ak seen i gis-gis uute ba ker baa ñoo sàngoo suuf. parce que man nee naa dama am toujours loo xam ne dama yëg ne maa ko moom muy droit à man li ma bëgg a wax dara dox sama diggante ak ma wax te dinaa ko ba ker mooy sàngoo suuf parce que nag. je vis toujours pour lekk jar ma lekk ah, donc euh, émission euh, amul tabu moo ko may mu ñàkk tabu li nga xamante ne nii euh, li yëpp si émission concept émission amul Tabou. donc mu ngi dans ce concept émission émission bi donc mën mun naa si témoigner lu hein. vie de famille bi vraiment masse quoi Tranquille, nga tranquille amul amul benn problème certes nag am na ñoo ni ko au sein de la famille. da nga ñemee njaboot te am kër gi xam nga paa bi bi mu génnee àdduna balaa muy génne àdduna bi muy dund ba léegi njaboot bi dawuloo benn yoon. waaw Ousmane su ma bàyyi daf ma seedaloon benn baat te baat boobu daf may def benn def benn daf may benn rage daf ma waxoon ni ma xaw ma kañ lay doon mais njaboot gi yëpp sa lay mujj boobu su ma mag ñu dund. suma baay suma yaay moo ko jëkk ma koy jooy pare moom mu topp si saalit loolu maa ngay fàttala ko dafa saalit dafa dafa saalit ah ne wëy wëy yaay àddina jeex na wëy yaay jee na wooy sama àddina tukki na dof ay quatre jours ah dof soo def tànki na ñu fa donc li muy dund ni tey émotion bi nii c'est lu am la dof dof dof comme dof dëggantaan

donc parti il fallait que je la les gars qui se révoltent ils ne lu pas révolter ils révolter pas. ils lañu quoi ils booster booster ils booster révoltent booster ne à la longue donc euh, ni la mel ni la alors. Euh, j'ai compris après si di ma tënk après tey laa koy doo comprendre ne may sant yàlla parce que li tax ma koy sant waxoon na ma ne ma nit am na loo xam ne dafay dee ak moom dara bu ko taxale ak moom mooy dignité ma gis ni dignité boobu yàlla dimbale na ma ko nekkal si parce que permettre na ma ma mën a sàmmante tey li ma mën a dimbali tey ak li mu mën a dimbali bu ëllëgee Ousmane xam nga ne ku maanaam ku yàlla dimbali la say relation yàlla dimbali laa it si ku ma gis bëggal ma boppam mënoon naa exploiter suma life si sens bëri waaye après bi yooyu yëpp xewee dama def taxaw seetlu ma ne est-ce man am naa droit à parce que tey loolu nekk nekk xale boo demee ba làmb gisatoo ndey gisatoo bàyyi gisatoo grand frère yow war nga xam ne yaay kilifa gi actuellement te ku ñëpp di xaar mu defar kooku bu yàqee kan moo koy defar kon man amu droit boobu moo war ma naan sàngara amu droit mu permettre ma war def loo xam ne yoon damay dab parce que instant bu nekk loolu lay liir sax sama kanam tey bu ma guddee àll ñu bari guddee àll bu ma yendoo àll ñu bëri yendoo àll est kon am naa droit

tey gis nañ ay nit yoo xamante ne tey ñu ngi leen di defal ay ñaan te ñooñu seen i pexe. Ousmane malheureusement noblesse jikko la woon démb waaye man la tey li ñu tuddee la noble un noble mën na bañ a am dara un noble mën na bañ dara jikko la woon démb waaye tey man-man la comme waaye nañu xam ne noble.

est ni ñu waroon a mel mel nañu ko est-ce que duñu la blâmer instant ak sa noblesse ak gedd bi ngay gedd gedd yu bëri parce que yow mun na bëgg yow. duñ ma blâmer xam nga lu tax duñ ma blâmer parce que nag indi ma ko si sens mu bëri ko si sens bëri c'est-à-dire li may dund te mu mën a nekk nekk dans dans une façon boo xam ne loolu la gën a te Ousmane. may invité mbokk yëpp si li nga xam ne seetlu nañ ko ñun en tant que nit muy tey am na ay saay-saay yoo xam ne ay kilifa ñooy làqu seen ginnaaw làqu ñoom seen ginnaaw ñu di leen dogg ay ñaan si jàkk yi jumaa yi si place sacré pour ñu ñoom pour ñu mucc dañu ñu sant ne tey saay-saay bi bu ñu fexee bu mucc mais est-ce que loolu kon parfois ñoŋal saay-saay bi. kon ñi ñaan tay ñi nga xam ne tey ñoom ñoo xam nit ñi ñu dëkkal xam ñi ñuy defaral ñu xam lan lañ leen di defaral parce que nag ab saay saay ku dolar ba dooleel ko na nga xam na dooleel nga loo xam ne day lor askan te lépp luy lor askan nga war ko dooleel maanaam beneen bi ma si dolli mooy ah. maa ngi invité képp ndaw képp koo xam am nga ay wéeru ñu nekk en présence dañ si góorgóor dañ si góorgóorlu bu baax a baax parce que bis boo ñàkkee ay wéeju rek bis boobu ngay xam réellement la la ngay jublu njëriñ si doom te bu am bu am bu am manam pertu pertu nekk ak suñuy wéejur war si waslu ax si sen dund ñu koy négliger di ko foye ba ñu dëdd ñuy rayee nag wala def ay sarax toujours c'est pas important nañu fexe ba seen dund donte benn pomm bu xaw a sax la ñuy am ñoo jox leen ko yàlla rek tax mu ëpp fuuf solo ñu bàyyi ñu dee ñu leen yow lay nag

mel ni que wax na lu am solo ñu ngi nekk jégalu ci euh, chantier yi ñu nekk fii ñu sommes en construction euh, du yàgg dara loolu yëpp dina deñ waaye dafa mel ni ñu dooleel ñoom russe yi ñoom euh, président russe nu mu tudd Vladimir Poutine ak ay Trump ak ñeneen ñi ba ñu am doole di leen ñaanal pour ñu gën a am doole tey coono yooyu noonu moo wàcc ba suñu njiit yi fi nekk kilifa yi fi nekk di def ay naka sa dul noonu ñu gën a ñaan ku ñu gën a am doole seen doole jooju noonu pour lor ñu la loolu la wax. Euh, beneen point bi muy la ma waa ji waxoon ku la mujjee wéy moom moo lay mujjee naxar waa ji tegaat si ne ma jamono ji ngay dund sa wéy jur yi lépp lu nga xamante ne ni yow am nga ko sa wéy yi ñoom ñoo ko moom ba kere ñuy dee ngay door ut pour sa bopp kon yéen ñi seen wéy yi di dund actuellement nii. lu ngeen liggéey rek jox leen ko seeni i waajur yi parce que di li ngeen di dundaat ak ñoom du yàgg bu leen fàtte loolu temps bi ngeen di dundaat ak ñoom du yàgg yow mën nga dundaat yeneen 40 ans mais mu dundaat ak yow beneen 20 ans donc 20 ans yi loolu liggéey rek jox ko ko boo ko laataa xam dëgg mu dëdd la comme am ay waajuram ni ñu ko dëddoo tey waajuram yi ñaanal nañ ko gërëm nañ ko sant nañ ko devant moi nitu neen la comme ni ngeen gisee nii lan ngay Ousmane li may tëjee rek moo di santaat yàlla julli sonant bi di jégalu képp koo xam ne sentir ni émission bi nekk nañu lu ñu wax waaye liñ si jiitu rek mooy nit ñi comprendre ne adduna mënu defaru tànk dëgg amul dëgg googu nag lu ñuy xaar rek cherche ko si maanaam ñi ñu jiite waaye ñun suñu bopp ñoo ko war a tàmbali bu ko defee ñoom ñëwee ñu koy encore une fois di insister si élection législative yi ñu kenn ku nekk si ñun. na bàyyi xel si li muy voté parce que lépp lu voté tey wala léegi dañ ko te lépp loo xam ne nit ki bokk na si li ko dooleel moo xam safar na moo xam lu jariñ la rek da si am ay retour bu ëllëg encore une fois di fàttali rek jeunesse bi que nit ku mu mën a doon ngay bañ système bi nga xam ne tey moom la ñu yi di naxe muy di ñu diriger mu sol te jotee ñu solloo ñu ko bu xeex jotee ñu xeex loolu bu tàcc jotee ñu tàcc loolu ku leen neex tey ñu ne ñu kaay leen neex nañu ku leen naqari tey ñu ne ñu noonu noonu leen ak moom parce que yooyu yëpp si xeeti dirigeant la boobu. parce que tey nit bañ na nit te jotewul ak moom dara nit bañ na nit te amul lu mu mën a teg loxo ne lii moo tax mu bañ ko lu dul nit a ñëw rek nga ko bañ ko sans raison kon yooyu nañ ko moytu bu ñu bu ñu bañ ku ñu ilif mais na ñu bañ ku ñuy diriger. bu ñu gaay waxee loo xam ne wóor nañu ne lii mënu la nekk wala lii amalul njariñ askan bi amalul njariñ nañu taxaw ñu lànk bañ loolu ba tëdd si ñag parce que nag bu ëllëgee ku yaay sa te ku sa di nga am loo rëcc wala nga am loo loo loo xam ne da nga koy da nga koy sante kon yàlla nañ bokk si ñi nga xam bu ëllëgee bu ñu tëddee suñuy bàmmeel fa am lu ñuy rëcc wala ñuy rëcc encore une fois c'est la jeunesse qui perd la jeunesse qui perd ñun ñun la ñuy rey ñun la ñuy hospitalisé te ñoom ñi nga xam ne tey ñoo fi taxaw di laaj li ñu gën a bëgg tey bu ëllëgee bu ñu faloo loolu la ñuy gën a leen yuuxu ku leen contre ku leen defuñu dara te tey ñoom lañ gën a bëgg boo demoon tey dans l'opposition koo si laaj li mu gën bëgg tey mooy nga sànni xeer le président Macky Sall bu ëllëgee bu faloo loolu lay gën a bañ ñi xeexoon pour le président tey boo xoolee majorité bi ñenn ñi fekkewuñ ñenn ñi ñu ngi si kaso bi ñenn ñu ngi si leneen kon tey nañu bàyyi xel ci jeunesse bi te jeunesse bi warul di perte parce que nag bu fekkee préparé nañ ñu comme ay relève bu ëllëgee waruñu mettre sax yenn terrain yi kon maa ngi ñaanal yàlla bépp jeunesse fu mu mën a nekk ci àdduna yàlla na mujj waaye yàlla nañ comprendre li war a tax ñu ci barke weeru koor euh, loolu moo nekkoon euh, émission amul tabu euh, nekkoon nag tey di dalal ndaanaan boo xamante ne ni ndaanaan la ci biir ndaanaan yi mu wax rek loo xamante ne nii lu am solo la si suñu dirigeant yi mu mooy fàttali Ibrahima euh, moom mi nga xamante ne nii moom moo àndoon nag ki nga xamante ne mooy Cheikh Kanté Ibrahima day ndellu day jël jaas si tóor si yaramam dugal ci bët bi luxat yi nee na ba waa ji faloo da ko écarté ma ne ko dina la écarté parce que nooy jëlee kuy ndellu nga dëgg ko dégg def ko si sa sécurité après <laughs> boo boobu <laughs>

mais tu as peur après. oui da ngay ragal. c' est normal c' tout à fait normal. c' est bu fekkoon ne bi s' engage yàlla rek tax. loolu ragal waaye nag comme da leen doon fay. ay gaañ fay lañ. wala léegi ma leen fay ma suñuy autorité nañu xalaat bañu ko bañu ko jiite waaye ku ko diriger diriger mooy jël bu. kenn du ma diriger kenn di ko di ko ñotti. bu ko jabar nangu bu ko bu ko bu ko jëkkër nangu jabar nangu sax moo gën a yomb parce que. loolu lépp lañ ko waxtaan c' est mieux. ku nekk am na droit. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu